jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey jii nag ci seen chronique de Souhaïbou bi ngeen xamoon incha allah ñu koy def ci GCB euh, te léegi muy solution info dellu seetit na tey nag jataayu tey bii dafa dafay spécial ndax chronique bi tey dañ cee bëgg dalal ki nga xam ni moom mooy euh, président Sall président Macky Sall waaw juumuñu de tey jii président Macky Sall lañ bëgg dalal réew mi ku nekk xam na ni yëngu na bari na ay jaxasoo bari na lu fa xew. ñu fas yéene dalal tey président Macky Sall ngir li xew ñu bari ñu ngi naan président troisième mandat dana ko def dafa bëgg a taal dëkk bi dafa dafa dafa dafa ci biir loolu nag ban taxawaay la président Macky am loolu lañ bëgg a seq ak moom ñu waxtaanee lii nga xam ne dafa jëm ci troisième mandat suñu jotaayu tey bii defe naa war naa mën a dox ba dugg biir pale ak ci biir gouvernement wu président Macky Sall war naa mën a dox. ba dugg ci biir kër kilifa diine yi ndax jataay bu ama ama ama am solo la ginnaaw bi ñu ko seqee ak moom président Sall ay laaj ki tontu jóg ci ñun ci li nga xam ne mooy mbirum troisième mandat et puis faaw ñu fàttaliwaat askan wi tuuti lu jëm ci wàllu président Wade ak li mu fi naroon a def ak kàddu yi nga xam ne moom la fi naroon a la la fi naroon a indi muy ay jëyee moom président Wade loolu lépp président Macky Sall dinañu ko fàttali incha allahu rabbi kon wax naa leen ko ni leen li président Macky Sall def. ak li mu wax ak fi mu wër ak lam fa digge lépp sëñ te def yéen waa réew mi li ngeen di xalaat lii Wàdd defoon muy lu ñaaw muy lu bon muy loo xam ne moo fi rayoon ay bakkan yéen xam ngeen ni président Macky Sall du def lii nga xam ni euh, moom lay kii kon njëkk euh, président Macky Sall ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di ginnaaw nuyu googu ak sant geeg gërëm gi ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne nag mooy lii lëmbe réew mi te ku ci nekk tey jële yaa tiit am na ñoo xam ne sax maa ngi leen di dégg ñu naan bis bu ñu euh, valider sa candidature li nga xam ni moom mooy troisième mandat lu fi waaye am na ko denc am na ñuy wax loolu mais ñu bëgg a def ab rappel ci lii nga xam ni moom moo xew ci réew mi ak jamono bi nga xam ne moom la Ablaye Wade naroon a def nga fàttali ñu as lëf ci li nga xam ne moom moo la Ablaye Wade Ousmane euh, li xew ci réew mi noo ko gisee. waaw li xew tey ci réew mi mooy lii wolof naan bi doon raam si lii raam si ñett bi la jëm. Mhm. Sénégal yëpp xamoon nañ ne fii ay weeran yi mu ngi ci ay pexe. Mhm. lu ne mu ngi def yokk na soldo juge yi nekk conseil constitutionnel joxe na ay terrain. Mhm. lu ne def na ko ngir ñu jox ko euh, valider ko. candidature moom nag yoon ak charte réew mi moo ko dàq ci jongante bi war a am waaw ku waxul waxu na war nga xam ni moom amul droit nekk candidat. Mhm. kon nag bu fekkee conseil constitutionnel. Mhm. bi nga xam ne moo war a nekk li juge des élections mhm. xam loolu ba pare teg si tànkam te moom dafay nekk candidat ñun dañuy dàq loolu te duñu si ànd tey duñu si ànd ëllëg ah bon nañu ko te dañu def suñu kem ngir loolu du fi amee waaye gis nañu aussi que moom njiitu réew mi taxaw na tembe jël ay matukaayam ngir andi doole. jaay ko askan wi. waaw lii conseil bi wax candidature yi immédiatement la gis ay Samba Boy ñenn ñi ñu solo leen tëni. ah waay ñu sànni ay xeer ci place bi nga xam ne mooy obélisque. indi mhm. fa situation gêne de de de perturbation. Mhm. au même moment police daal di chargé def ay char à peau. Mhm. tour ndox ndox mu tàng nit ñi jaxase manifestation bi. nit ñi gaañ nit ñi. kon nag mel na ñu moom ci doole la teg candidature am. Mhm. ci doole la teg fas yéene. Mhm. foqarti li nga xam ne mooy kàddu ak wi. loolu la ñu ne ñun duñ ko nangu te comme moom léegi won nañu yoon wi démocratie mënul am boo ko waxee du dégg. Mhm. waxtaan ak moom mënul sot adduna bi yëpp wax nañu ak moom nanguwul. lu ngeen bëgg kon mooy ñu résister ñi nga xam ne démb barki démb suñu maam yi bi nooteel ñooy saxoo nañu. jànkandoon bi ak ñooñu doon leen noot. tey jii nag kii noot ñun la bokk. <laughs> maanaam en tout cas ñoo bokk muy nit ku ñuul comme ñun di sénégalais. Mhm. moo fas yéene noot Sénégal ngir toog fi toj fi doomam te dañu ne loolu du fi amee. may ñaawlu aussi. li mu def ndax wax li may wax ak yow sorewu ma place de Lobine. fan nga nekk. ñëw nañu si bërëb bi ma ne. Mhm. police dugg na si kër muy violation de domicile. Mhm. ay oto yoo xamante ni ne samay oto la. suñu mhm. sécurité amoon ak oto yoo xam ne ay xale ay militant ñoo fi nekk. Mhm. par coup de matraque la ñu tojee vitre yi gaañ leen. Mhm. dóor chauffeur yi. waxtu bi may wax ak yéen ñooñu yóbbu nañ leen ci clinique bi nekk yottu place de l'Obélisque loolu yëpp lépp lu ci dal nit. te dèjà naqaru nañu deret bi nga xam ne tuur nañu ko. waaw ak lépp loo xam ni ëllëg dana nekk conséquence. ci position bii mu def. Mhm. moom moo koy yenu moo koy soogee. ñaan ñëpp ñu taxaw fas yéene. daa nga xam ne mooy taxawaayu nguur gi. jërëjëf kon président max Sall. oui. ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm jërë ngeen jëf mbokk yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon euh, topp ak di ñu bàyyi xel ki ñu dalaloon moom mooy président Macky Sall dégg ngeen li nga xam ne euh, moo ko wax muy ay kàddu defe naa ni ay nervi ci jamono ji surtout yéen a ngi dégg sànq ñoo ngi euh, partagé ci réseaux sociaux yi ki nga xam ne mooy site ak euh, euh, Zarko ñu ni dañ leen a bëgg a pour le 16 bi ñu jëm loolu itam yéen a koy dégg ci biir wax jet de ngeen président Sall tudd wàllu nervi ñun nag bi ñu xëyee ba léegi ñoo ngi euh, woo Zarko mënuñu ko jot bu ñu ko jotee itamit xabaar boobu faaw ñu laaj ko ci comme nañ ko fi defee woon Sa Thiès bu ngeen fàttali ko fii ci solution info bi ñu fi tuumaalee Gris Bordeaux ak Sa Thiès lu mel nii jëloon nañ suñu téléphone woo leen jël leen ci émission Jomet ñu leeraloon ni wan ne ni xamuñu sax li nga xam ne mooy ku bokk état bi Sa Thiès moom li mu ci sax biraloon mooy moom baatu nervi fii ci jamono jooju la koy dog a dégg kon tey jii tuumaalaat nañ ko ñaari mbër yoo xam ne itamit euh, xam nañu leen ci am ay mbooloo popularité bi nga xam ne am nañ ko euh, tuumaal nañ leen naka nag la demee est-ce que lu wér la ak wérut loolu lépp dinañ ci jéema a lu leer comme ni ko président Sall waxee ci biir ay kàddoom euh, ni euh, Abdoulaye Wade dafa jëloon ay nervi boole kook askanu Sénégal yi ngir ñu bundaxatal leen nervi yooyu feeñaat na ci jamono ji loolu lépp dinañ ko topp muy ab xabaar boo xam ni euh, lu lu ñuy ruumandaat la waaye daal la sëriñ Abdoul Ahad waxoon réew mi ku fi nar a indi leneen lu dul jàmm ci yow la yem nerveek policeek gendarme képp ku mu doon ku nekk li la war ci réew mi képp mooy sa jàmm boo defee leneen lu la warul ci réew mi rek defe naa ni conséquence yi mën naa dëppwaat ci sa kaw ndax réew mi dafa am ñu ko dëkkee ñoo xam ni xëy liggéey lu lew lekk lu lew bàyyi seen njaboot yar leen di dund ci lislaam ju lew ak ju baax joo xam ne ku leen nar a yàqal loolu nag gëm naa ne du la jéeg ba amaana mën nga ci am daani borom bi kon mbokk mi ngi noonu gërëm Abdou Top mi nekkoon ci euh, montage yi Euh, gërëm président Sall mi nga xam ni moom lañ doon dalal mu fàttali ñu defal ñu ab rappel ci li fi Ablaye Wade naroon def muy lu bon lu xasaw euh, lu xeeñ xunn lu ënn loo xam ni moo fi rey fukki bakkan ak lu teg kon nag defe naa bu ñu koy ruumandaanaat ci jamono ji war nañoo woo président Sall mu daal di leeral chronique de soie bu la woon ñu ànd ceeg yéen gërëm leen bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.